bokki daara ji asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi del siwaat ngir fas yéene fàttalente yéen leen ci boole alquran yi ñu baaxoo jàllale ci bis bi ci waxtu yi te ngeen baaxoo ci ànd ak seen bokk daara mu ñu wax Moustapha Cissé ba léegi ñoo ngi ci saaru yoonu ci isibu inama sabilu shurubuhu wala yu xajjilu ay war nekk nag sunu bindub téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar cent vingt-septième boole yiñ ci joxe mooy xalaa'ifa fi lardi yaar la xalaa'ifa lardi bàjjob laxraaf danañ joxe fi samawaati wala fi lardi ñeent la naayo yekkatu boona juróom la am na mbóore yaar tomb laa yekk ak muslim daroo muslim eh, daroo yekk la baatu muslim yi doon daram wala muslim wala maslim wala masloom eh, miim ak taati daroo ji daal lañ ci jub doon a tax muslim ci yekk la kon boole bi ñuy njëkke xalaa'ifa fi lardi yaar la yoonu sa ko am ak faatir xalaa'ifa fi lardi waaye xalaa'ifa lardi moom bàjjab la xaraaf bàjjab lan xam xalaa'ifa fi lardi yaar yoonus ak fandaak xalaa'ifa lardi bàjjab lan xam samawaati wala fi lardi la fi samaati wala fi lardi subhanahu ma nga ca yoonu afkaru ak fi samaati wala fi lardi wa ma lahum fihima min shirkin ñoom ñëpp ña kaana haliman ma nga soo ko boolee muy ñeent moo tax mu ne fi samaati wala fi naayo subhanahu nga yunus wala afkara wala wa ma lahum nga sabay innahu faandaak yàkk tu boona juróom la waaye mbóoreel yaar la laa nag yoonu suñu ko am tomb laay yett la tuur yëpp xalami ak suxruf ñooñu ñoo am yi tomb laa yi laaye mbóore nag mooy bañ a moo tax ko def mooy laa nag yoonu waaye yi denc laaye wala tomb laaye yett tuuri xalami suxruf ñu teg ci boole muslim daroo naa eh, ndaanaan eh, daroo ndaanaan yet maanaam muslim taat ci daroo daroo nag mooy taat bu ñu tomb mooy mu ne man ma nga ca yunus man ma nga ca lisrayi muslimoona ca jaal yet yooyu la musliman yunus masloman lisrayi muslimoona ca jaal muy sóoratu yaasin kon incha allah ñu jëm leen a leeral boole yooyu bale wu ñu njëkk muy xalaay fa fii laa diyaar demal saari yoonu si isim innama sabilu si rubbu wala yoo xajul da nga fekk summa ja'alnaakum xalaa'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kayfa ta'maluun demal saaru fandaak ci isim bu xul man yarzuqukum ci bisu yaa naas antum suqaraa da nga fekk huwa llazii ja'alakum xalaa'ifa fil ardi faman kafara fa alayhi kufruhu saar yooyu bu dee ba jubla lam xam ak ni'matar lan hamtiti wala wanna naacur bukul taala wattu da nga ci fekk huwa allazi ja'alakum xalaa'ifa al-ardi wa rafa'a ba'dakum foo ko boolee mu jox la yett yooyu bu dee fi samaawaati wala fi l-ardi naa yow demal saar Yunus ci itib inna masabili turabul wala yu hajilu da nga ci fekk qul atunabbi'uuna laa bimaa laykum fi samaawaati wala fi l-ardi demal saar sabay da ci itib ba ma yaqunu da fa fekk yaar ci nisifu yasaluka di jëkk ji ci nga koy fekk ak ci rumu waaye waaye mooy laa ñu subhaana misqaal sarati fi samawaati wala fil ardi ji ñaareel ji ci rubu wa yara mooy xulud la seen samtu min dooni laay lam kon misqaal sarati fi samawaati wala fil ardi jeexale ji ko ca saaru fanda ak ci isi bu xul may yasafukum ba tey ci rubu in laa ñu subhaana da nga fekk wa maa kaana laahu liyuhjiza min shay'in kon a samawaati wala fi lardi naayoo yekkatu boona mbóore juróom xam juróom juróom la mbóore yaar tomb laay yett yaar yi mbóore mooy laan ak yunus yett yi denc laaya mooy boo ci suxuruf jimbi la mooy xaatar tomb laaya yaar sóoratu tóori tóori ak jimbi suxuruf moo ko balee muy juróom kon da ngay bu dee yàkkati boone yooyu bu fekkee jàngoon naa ko waxoon na dama dama dama koy jëloon bi may bi jàng boole moo tax ma leeral leen ko noonu bu da ngay dem saar laan bu dee jaar yi mbóore saar laan ci ici xoo ci roba cëkk te da nga fekk foo bay lon li nekk suban ba waay diin ci ko ñaari saar si ici bi nama sabili ci robu da nga fekk kulli asran mas asran makran inna rusulana yaktubuna ma tamkuruna bu dee jimbi ji nag da ngay dem saar suxruf yi ci bokk laa wala jiitukum ci rubu yu taafu da nga fekk am yax ci boon ba mu yëkkati boon am yax ci boon an naa laa nasumu si am yax ci boon an naa laa nasumu naa la day yëkkatu boon ka ca topp jimbi la jimbi nag boo ko déggee mooy xaasar tomb laa yaar rek dama saar tuuri ci iti bukk xaala fa ma xaddu ko moo ci rubu kii na da nga fekk am ci doomal xay bu fa mu yëkkatu boon saar xalami ci isbu tabaaraki turubu sanati mooy da ngay fekk am hindahumul xay bi fahum yaktuboon su ko defee muslim darooy ndaanaan yett yi demal saar yoon isbu lillati ne ci roba jëkk ca na nga fekk ku jëm xitaxan min a layli musliman wala min a layli musliman ulayka saar lislaay isbu subhana ci rubu xadaa da nga fekk wala taqtuluna nafsan allati harrama allahu illa bil haqqi wa man qutila masluman saaru jaal muy suuratu yaasin ci ci bu ja da nga ci fekk ayatu lahum laylu naslaxu min nahaar fa idaa hum muflimuun wa samsu tajri li mustaqarrin lahaa kon muslim yet daroo muslim daroo yet wala darooy yet kon maa ngi taxawlu foofu lu ci jub rek nañ sant yàlla lu ci dëng nag ñoo xam ne ci ñu ñii doon wax la in uridu illa al-islaah mastata'tu wa maa tawfiiqii illaa billaahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib wa salaamu aleykum wa taala wa barakaatu